bëre loolu moo la tax a jóg mu ah, barki maam Seera Fall baax Papa Sow saa kees dégg nañ lam laa soxla dégg nañ ñëw ñu bëre samay naa soxla la samay naw la la loolu neex na defuñu làmb mais mais Modou kii ñëpp la war a bëre waaw ñooñu mu wax ñoom ñëpp mën na bëre ak ñoom waaw kon bu leen laajee jaadu na eh, ma dolli si beneen moo ma dolli si booy ñaa bu ñëwee ma may ko revanche nee na mu dolli si ah. booy ñaa bu ñëwee ma may ko revanche xam nga ma kon baax na kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci yow fii ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ba fii arbitre bi na combat Ibra Ngabou ak ki nga xamante ne moom mooy Batista numéro 2 combat bu rëy combat bu am solo mooy combat spécial bi waaw waaw Ibra Ngabou ak ak Batista numéro 2 Ibra Ngabou moo nekk à droite Batista moo nekk à gauche xam nga ne Batista numéro 2 la duñ bokku ñoom euh, ñoom ñoo bokk benn maam nuroo nañ bind kay waaw ñoo bokk benn maam. benn Batista la mi daaru la dëkk. aa ah, ok. waaw frère Eumeu Sène la. Batista Ibrahima Gaabu taw na jël ko. waaw waaw. moom moom moom ak euh, Batista xeex nañu jàppante nañu. waaw dañoo xeex rek jàppoo. dañoo xeex rek jàppoo. mais comme combat yi fi jaar yëpp seetloo xeex bi bëriwul. waaw dañuy daw rek yi bi la ñu gën a waaw waaw. Euh, et puis am na solo nag. xeex bi xeex wut buntu la rek. waaw bu wut buntu bëgg dafa bari. parce ah, que loxo bii la bëgg a jàppe. waaw loxo bi mu jàppe moom la bëgg a jàppe. Ah, ah. looloo tax mu sukk pour wuti action. dëgg la mais mais nag il nga jël risque pour am dara. ndax defoon na trois appuis. waaw li dem na bëri leen jeexagul de daanogul bëri leen bëri leen waaw bëri leen bëri leen Ibra Ngabou daanu leen Batista waaw mais na na ko teylu parce que boo dee def te ñorul déet waaw boo moytuwul da lay rëcc waaw action da nga koy ñoral action day ñor mi ko doon jéem a songale le xale yi di wax man ñi man la lañ daan penk penk penk waaw xale yi nan songale ndeysaan Ibra Ngabou Batista mbokk yi ñoom ñaar ku ci nekk téye nga ngem aha donc fii et puis ñaari bërekat lañu. ñaari bërekat lañu. waaw ñaari bërekat lañu. seen i bopp rambat nañu. ñoom ñëpp dañuy bëre ci mbappatu séeréer. effectivement ay ko xam. mais loolu la waaw ma ma suul loolu mooy loo wàq ma suul. mbokk yi Ibra Ngabou ngeen jàkkaarloo Batista moo nu ko ah. Pikine mi ngi bàyyi ko Parcelles. Hmm. ndeysaan daa annoncé combat Ama mooy Modou Lo. mais dafa mel ni amaa génn woon arène bi de. waaye dellu na génn na dellu na génn de. waaw waaw Batista ni war a dem moo nekk am ah, benn lam du yëngu. déedéet waaw. Ibra Ngab. Cey Fall ah, ay waay Ama Baldé waay. Cey Fall. man Ama ne dama ko doon daw di ko kar. waaw waaye bi ma tegee benn loxo bi. ah gis naa la. ci barrière bi laa dal. Ah, dama ne sama doom. Oh. Modou dafa am loo sentir. laa ilaaha ci laa dal. daaw non eh, eh. ma macha allah. yàlla yàlla yàlla xare la attention <laughs> yàlla xare la. mais xale yi ñu ngi bëre de. attention Ibrahima Batista. ñu ngi bëre bëre bu rëy ay bërekat waaw ñu ngi bëre bëre bu rëy. ay Ibra Ngam ak Batista. Batista ñi bu rëy. Batista loxo bi mu bëgg a loxo càmmoñ bi. Ah. mais nag xamalu tëj beneen baala moom la amatul. baala xamalu tëj beneen waaw te bi foofu la nekk bëre bi ci càmmoñ gi la wet. bëre bi ci côté càmmoñam la nekk. la nekk waaw ok léegi li tax jàpp li tax loolu lay wut te bi baaxul. non épaule bi loolu moo tax. épaule bi la ko ndengeñ ñi ci put gi la ko teg. bee waaw parce bu jàppee. waaw moo tax ay Blanc bu am problème. am problème ok mais ni bu bu épaule bi tegee koon rek ma buntu mën na feeñ. mais li muy bëre ay appel la rek. appel la pour am waaw waaw day cokkaas laal fële. fekk la muy laal déséquilibré ko lay wut. waaw mais am na leneen lu mu bëgg feneen. waaw Ibra Ngabou tamit dafa téye ba pare wéeru ci kawam. waaw pour bu ko defee action mu di mu contré ko. waaw waaw ñoom ñaar dañuy naxante fi ñu toll nii. dañuy déglante parce que seen i doole dafa xaw a tolloo. dëgg la waaw. ndeysaan paa la moom la xam ne ndeysaan dafa pratique. ah <laughs> waaw dafa pratique. xam nga li ñu naan léegi du min ngañ yàgg ci. Oh, dëgg la ah alaaj Sala alaaj Sala Pala Diop mu. bu ah. Papa Diop ba sonn. ma lay topp naa ko ko mbapat fu ne de. Ah. dëgg la. <laughs> Mansour daan nañ ko daan paala mooy furli. dëgg la <laughs> bu ñu daanee Mansour paala furli ko. mais Mansour a ngi fi ah. gis naa ko barki dem ñu ngi ne Boy Niang. ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy nuyu bu baax garab moo di doomam ndeysaan. ñu ngi baax lool. Mm. jekk doon na mbër mu jekk moom it. waaw waaw ba léegi day def musculation. daan ànd ak ah, Franc waaw waaw ba day def salle musculation. daan ànd ak Cheikh ah am na de. ah am na non non non non. loolu ci ci ci ah, dëkk bi la ah waaw waaw waaw bi la. kon arbitre dana na arrêté combat bi. waaw dafa arrêté combat nekk nii. waaw xam nga nag ñun ci télévision bi la ñuy xool. waaw noonu la. waaw léeg-léeg Karajo jaaxal ñu indi ñu la lu wees. waaw bëgg noo jommal xamal Karajo na loolu mooy kenn du moom mooy loolu mooy replay. booy booy Pikine la da ngaa a wax ni ñun amuñu ko <laughs> man Modou man Modou léegi xeer yi nga Modou Modou bàyyi si xeer yi nga may jal <laughs> man a sama doom ji Karajo mooy mooy l'enfant chéri de de Pikine kooku papa ma moo man Sénégal électroménager Alaaji Mbaye Diagne si Alaaji Mbaye Diagne si ah fii ah, ah. Karajo wan nga nañu lu garaaw ah, fii am na a moom eh, am na lu ñu Karajo di wan saxal na ko de attention ñoom ñaar xeexaat nañu Batista ak Ibrahima bu jàppante nañu laa ilaaha illallaah man da xale yi xam naa ne ñi nee na nuñ ko bañ waaw waaw laa ilaaha moo ca barrière ba laa dal da da laa poussé jàll. te damaa poussé da ma moo may ma rek. dafa poussé rek. yow nga def sa <laughs> mbaa kortoo barrière non barrière bi daa doon gisoo catoo ne ne da doon daan Modou rek ma fàttali sama xeex ba pour fuutee waay waay bi ma jëlee coup waay yooyu mbandum essence bi laa kott dafa ni nit la attention <laughs> mband mi mband mi nu jaay essence waaw essence talib mag mbaa dóoroo ko non dama doon xeex benn pël fuuta bi waaw man ak moom ñu raag-raag men ndam demul ndam dikkul man dama jékki-jékki jël ko ndekete benn ferram moo ma yoxos mais Modou mbar de essence bi laa kot di ko dóor ay kumpeñ di ko def mbëkk di ko di ko kuntaabaak mbëkk eh, eh, indi cool mi kaay indi cool mi kaay ndeysaan eh. ndeysaan Ibra Ngaabu Ibra Ngaabu ak Batista ak Batista waaw mi rafet na de mais mais cool mi rafet na trop parcelle lay yeewoo gëm ah. boppam ñëwal kaay fu mu dem bëre li muy bëre daan ñibbi boo koy loo teg nga ni koy Moussa Yacine Moussa Yacine Mbaye da ngaa ñëwoon tey pour tëgal si Modou waaw waaw dama ñëwoon pour tëgal si mbër bi waaye yàlla dogal na ñëw jotul dugg ci bi waaw waaw waaw de Modou Mbaye ñëwoon nañ nag def lu ñu war lépp. waaw macha allah indi lu bees tàq. waaw bëggoon cee ñamal askan wi. waaw waaye nag gis nga nu mu demee. waaw sant yàlla rek. yoon yamul si benn waaw yoon yamul si benn. yaa ngi wax supporter yi prochainement. prochaine fois ñu waajalaat ko rek. incha allah def ñu ko daan defee macha allah mu jeex. kontaan naa ci yow. kontaan naa ci yow Modou Mbaye. jërëjëf jërëjëf. jaajëf Moussa kontaan nañ ci moom bu baax a baax. loolu mënul ñaax. loolu moom dafa yaru Moussa Yacine. dafa yaru waaw xam nga xam nga ndeysaan dafa am nit ñoo xam ne yàllaa leen yar waaw monsieur Yacine xale bu yaru la xale te gis nga baa la waaw dafa am nit ñoo xam ne da nga leen sax mus dëgg la te Sénégal boo amee chance nit ñi rus la rek am na chance waaw mooy chance sénégalais nga fexe ba société bi rus la waaw am nga chance parce que sénégalais dafa gaaw ci wetti nit waaw sénégalais dafa gaaw ci jéppi nit waaw Sénégal dafa gaaw ci nit maanaam am am déception ci nit. léegi na yow bu dee da nga defar sa ko defar sa jëmm bokk la gis ruus la loolu sant yàlla la. attention Ibra ak Batista Batista wéyale na ko. ak Batista jàpp na fu baax. Batista jàpp na fu baax waaye ah, Ibra Ngabou. waaye Ibra Ngabou aussi dafa dafa dafa dafa mën a contrer. dafa mën contrer waaw lu mu liggéey mu yàq waaw waaw ba pare nag dafa jël ndengeñ boo xam ne da ko teg ca mbagg ma. waaw loolu la moo tëj waaw waaw waaw maanaam. ci li muy liggéey sóoraale défendre. waaw tey non tey Batista. waaw ah, gis ko dugal na bopp bi. ñoom ñaar ñi fi ne bu tegee mu génne bopp bi. waaw tegee prise mu dugalaat bopp bi mi ngi noonu. def. loolu moo tax loolu moo tax bëri bi tëj. dañu xamante nag. dañu bokk bëre. parce ñoom ñii ñëpp bëre. ay lam ah, yi dañu bokk bëre ndeysaan waaw waaw. mais nag xam naa ni téere bu xonk bii. Ah, attention sëriñ bi koy dafa dem bëri ñoom ñoom ñoo ko nduróo. Batista action wóorul wóorul carrément. déedéet du ko assuré. déedéet day tante rek. day tante rek. waaw te boo bëggee jeexal làmb ji na da ngay def action bu wóor. waaw waaw waaw benn prise bu sax. waaw moo gën fukki prise yoo xam ne da nga koy tante rek da nga cee daanu. waaw kon saxal benn ba mu ñor nga def ko. dëgg la dafa am solo. ba pare mbër ak mani. waaw waaw nga xale yi léeg-léeg dañuy bëree dañuy bëree bëri noo xam ni. tooba saxal maamu suñu. Ah. attention loolu bëri. waaw mooy doon wax gis nga ko. waaw tooba saxal maamu mën na ci coono boo xam ne. coono la ciy du mën a jeexal sa combat. loolu mooy tooba waaw parce que mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi dépassé énergie. Uh-huh. waaw benn prise bu sax nag dafa bari lu muy jub waaw. te xam nga Balla nag ma naan wax lenn. waaw nga ni ma mbër bu dee songukat waaw fukki song boo ko dee song mën ngaa réussir ñett par moo xamul nu muy loo xamul nu mu mënee waaw daan ko ab congo <laughs> koo xamul lu mu mënee waaw congo koy def congo koy def xam nga moo <laughs> xam nga ko dal la daloon naar baa ko dal waaw naar bi papa ji di ko tungoom di ko ñu jéggi dex waaw papa ñu jéggi dex waaw xam nga ni ndox bu yëgee tànk bu yëgee xorom si papa jékki-jékki dafa tungoom doom bi waaw jékki-jékki papa jékki ne aa ah, ndox mi sëb na xorom xale bu ndaw bi mu ci kaw ni ko papa doon xorom yaa may jam ah papa ni ko wàccal doom mokkal mokkal <laughs> waaye Modou looloo ko dal. looloo ko dal. nee na nee na nee la lu koy jeexal. daan koo xamul lu mu ah. ko koy def. maa la ko wax waaye dégg naa dëgg waaye. <laughs> maa la wax nii ma ma ma Fally Coupa naa ma dégg naa dëgg. leçon la bu ma alaaji Pala jàngal ba ma ma xool. daan na ko mi ngi nii. daan na ko yokk la dóor ci biir waaw mu bàyyeeku mu yokk loolu ti xoola seex ah, na saako ba Batista eh, eh, xam nga ku mu tuddee boppam xale bi ci abin Ndiaye ba mu tuddee boppam mbokkum Eumeu Sène la mbokkum Eumeu Sène la ñoo bokk benn ma xoolal làmb ni mu rafetee xoolal ni xale bi def saako bi li déw dafa am doole waaw li mooy dama am doole suuf la ngang waaw suuf la ngang maa la wax et puis dafa bëree xam-xam waaw waaw parce que fi ñu yeggoon ñoom ñaar jaayante doole fa desoon. waaw waaw mais gis nga ko. waaw parce que duur tànk ci suuf. expérience mu répondre mu fàq ko bës. ba pare ba pare ba pare intérieur la ko mbëkkee la ko. intérieur la ko maanaam tëqum biir. Ah. waaw tëqum biir la. waaw ah, moom nag dafa dafa doon mbër gi. dafa doon ah, mbër gi ba pare mi ngi dëkk Daaru aussi. wane na boppam Daaru Ñangoor. Daaru <laughs> Ñangoor.